yéen nga ñëw bëgg a taqal askan wi bëgg a peuple bi ci affaire troisième mandat pour Macky sax wi lu mu ko jaral dañu ko jaral. Macky Sall c'est une voleur. Macky Sall c'est une voleur. Macky Sall mooy ki nga xamante ne mooy tourisme bi gën a ngand ci réew mi. Macky Sall mooy ki nga xamante ne mooy tourisme bi gën a ngand ci réew mi te loolu ci accès de pas duñ ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg. ma leen di xamal ni Macky Sall mooy le premier tourisme de la Sénégal Macky Sall leen di xamal ni.

yeen nga ñoo bëgg takal askan wi bëgg solo peuple bi ci affaire troisième mandat pour Macky Sall sax lu mu ko jaral dañu ko jaral Macky Sall c'est une voleur Macky Sall c'est une arnaqueur Macky Sall moy ki nga xamantene ne tourisme bi gëna ngand ci réew mi ta lool ci accéder pas duñ ko nangu tay duñu ko nangal ak ma leen di xamal ni Macky Sall moy le premier tourisme de la Sénégal Macky Sall li mu bëgg def kilifa dine moy du leen écouter dégg la porte parole yi dégg la li citoyen ordinaire yi Macky Sall lool duñ ko d'accord tey duñ ko d'accord monsieur le ministre neel Macky Sall loi bi baaxul tey baaxul ëllëg te ñu ngi naan ñu dàq la si ministère bi ndax mérito woo ko xamoo si xam-xam yoroo ko si vraiment merci jërëjëf La chaîne du rapproche de la réalité.